mbokk yi ñu ngi leen di dellu leen nii leen jaajëf bu baax baax ci ànd ak euh, programme Univers Direct bi rawatina émission euh, heure de vérité bi ngeen dem ba bu jot tey nag mbégte lu yaatu la ñu am ginnaaw nag bi ñu leen di bu baax baax dellu nag baalu ak ñëpp ci tabaski bi nga xamante ni la ñu génn di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla may ñu fekk ko ay déwén yu bari mbégte lu yaatu nag tey la ñu am ginnaaw bi ñuy jaajëfale bu baax a baax suñu gan yu fi jot a jaar nag ci mission bi tey nag mbégte lu ñu ànd ak am keneen ku ñu fi ànd ak ci langue politique muy jaw Diaw dëkk fii ci Daara Jolof tey moom lañu daal di fas yéene ànd ak ci waxtaan bi waxtaanee nag tolluwaayu réew mi li nga xamante ni moom mooy ci wàllum actualité local ak national mais laata loolu dama koy bàyyi ak suñu gan Magnang Diaw mu nekk mbokki téléspectateurs yi Univers Jolof TV waaye également yéen ñuy daal di suivre donc ci www.universjoloftv.com Magnang Diaw ñu ngi leen di nuyu. waaw jërëjëf Maodo euh, nga baal ma ma nuyu d'abord nuyu la. Euh, nuyu sa technicien bi euh, fas yéene la yow euh, pour waxtan lepp li nga xamne soxal na askanu senegal soxal na askanu Jolof bala lol aussi ñuy bal wax ci tabaski ngeen joge di bal wax askan bi yépp di len bal di len wax ne en tout cas tay taxaw nañ pour jema a yow échanger ak yow partager ak yow ci suñu xam-xam bu ndaw biñ am pour que lepp pour leeral jërëjëf. voilà merci beaucoup Maniang Diaw. Euh, ci présentation bu am solo boobu néew bi nga xam daal doore nga ko ci waxtaan bi alors euh, man nag laata ñu dugg ci waxtaan bi euh, xanaa rek ci dellu si tuuti rek xëy na ñi nga xamante ni tey ñu ngi soog a tekk Maniang Diaw gët am sax daan nañ ko dégg ci tënk rek ci présentation bu gàttu est-ce que tey mën nañu xam ci dëgg dégg kan mooy Maniang Diaw. waaw jërëjëf Maodo Maniang Diaw doon na koo xam ne mbëllëxe la juddoo yaroo fa màggee fa. Euh, def fa cycle primaire bi mu amee certificat mu dem Linguère Linguère fa la amee BFM bi mu amee ñu orienté ko Kaolack muy lycée Valdiodio euh, Kaolack ca la amee bac D mooy série S2 léegi euh, bi mu amee bac bi lañ ko orienté faculté médecine ak pharmacie mu dem choisir option pharmacie mais xam nga jamono ji dafa dafa doyen waar parce que cause bi ñuy wax année blanche bi dafa nekkoon suñu xel ñu ñëwaat université en 2094 euh, mu doonaan année invalide ci lañ amoon nag mébét parce que ñun dañu yàggoon bëgg ELOAS càmm ci lañu def benn concours bu ñuy wax école nationale de formation des techniciens d'élevage ci lañ dem def fa trois ans am suñu suñ nekk fa technicien producteur animal euh, bi ñu jógee foofu après ñu génn formation bi muy jamono Abdou Diouf ju métti ji en 99 alors euh, comme qu'on est dans une famille famille euh, enseignante si la nous pousse ma vraiment ma def concours EFI Qui la génn ba léegi me donne enseignant je enseigner nekk école lycée bu lycée franco-arabe comme surveillant pour le moment. Mmh. voilà merci beaucoup ci donc parcours que nga le euh, présenté ko parcours vraiment donc Depuis riche depuis que démarré donc ce cycle scolaire ca mbalax gi cosaanam alors laata donc euh, ñi dugg ci waxtaan bi naam sax am na ci présentation bu am solo boo def ci sa waar jaar-jaar ci wàllu njàng ba léegi sax nga nekk donc dans le secteur de l'éducation mais aussi ci fàttali aussi yow yaa ngi ci donc euh, parti politique bi di réew mi donc nga bokk responsable yi nga xam ne yéen a ngi milité fii ci biir Daara commune euh, donc bokk ci coalition IDI 2019 mais est-ce que mën nañu xam ca dëgg-dëgg Maniang Diao ci wàllu politique. Euh, ci ban parti la la ko euh, donc lan aussi donc moko ko tax tey jii mu mujj ci parti bi di rewmi laté aussi donc bam traverser quelques plateformes politiques. wa jërëjëf Maodo euh, loolu boo ñu ci laajee dañ sawar a wax parce que buñu ñu ne en politique biñ ci dugg c'était en 2007 2006 2007 ci lañ ci duggoon parce que pour fàttali la rek ñun biñu ñu élevage. Euh, nous dañu un homme de développement moo tax suñu activité yëpp ci embouche lañ ko defoon euh, embouche bovine parce que nous daan def opération bovine euh, mais bi ñu ba benn waay gis ñu suñu benn xarit jokkoog ne ko daal en tout cas gis naa benn xale bu ñuy wax Jaw mu dëkk Islam su na sa parti la en tout cas doon la amal ci pousse parce que day suñu xarit ci lañu pousse ñu dem gis Aliou Dia waxtaan ak mom euh biñu waxtaan ak mom effectivement euh, ñu bokkon xalaat parce que yalla dafa def ñun som du monde rural damay faral di wax ne bi ñi ngenté bu diggutoon ak gerte peut être du am tour waye suñ bay dafa bay euh, naa bacc def lepp ba tax euh, ba ñu dem ba gerte ñu jaay ko ni période traite ba tax tay ñu mëna tok fi wax donc ñun dañoo gëm bay gëm cham Euh, alors si waxtaan ak mom mu wax ñu philosophe manam politique ni mu ko Si euh, ci nonu nak engagement en 2007 né dal dañ koy donc un premier parcours ci a lañ ko def euh, te mi ngi door en 2007 lañ ko commencé jàppale. voilà waaw booba booba amagul kii amagul kuréel. parce que booba bon benn organisation la yoroon. mais c'était politique muy force paysanne mais après le créer euh, li wax la CRC la convergence pour le renouveau et la citoyenneté euh, ñu bokkoon ko ak suñu xarit ku ñuy wax euh, Badara Ndiaye nous ko ku ñuy wax El Hadj Mbacke nous bokkoon ko ku wax Babacar en tout cas ñun ñooñu nous la jëloon pour que vraiment nous dem jéem ko pour me créer parti bi mu créer parti bi bon Badara Ndiaye m'a donné le président

parti bi dafa am na muy doxee te ñun bokk méngoowul ak ñun li tax ñu duggoon ci moo tax ñun ñu xaw a retiré pour vraiment demaat militer ci beneen parti mm-hmm. alors donc euh, ci bi ñu ci duggee en 2007 ban année nga vraiment tàqali ak adhéré ak kuréel bi yor ci politique waaw su ma yeboo ne la suma activité maa ngi ko arrêté en 2014 après élection locale yi su ma yeboo ne la commencé vraiment arrêté suma activité parce que bu ñu parce que nous étions une partie d'opposition parti boo xam ne dañu amoon philosophie que kat nguur ak Macky gi dañ ko xeex je pense que boo xoolee cette forte coalition bi nga xamante ne créé woon nañ ko avec le camarade Pape Diop dañoo amoon ambition pour briguer suffrage suffrage national maanaam au lieu nekk parti boo xam ne parti yóbbaale ma mais dañu amoon benn vision mais bi ñu demee ba par rapport ak ñun suñu idéologie li ñu amoon ñu dem ñu gis ñu dañuy jàppale Macky Sall te ba ñuy jàppale Macky Sall wax dëgg yàlla am tooguñ ci waxtaan tooguñ ci diisoo te bokk suñu philosophie moo tax daal vraiment ñu arrêté activité yi euh continuer dal vraiment jëma méditer ci benen diine dem ci kujje quoi. waaw ni dem ci kujje mm-hmm. euh ñu bëri nañu mais tooñ naan ma peut-être Aliou Dia da la wàll. Mm-hmm. da nga bëgg kujje lool. Mm-hmm. mais du lool euh nit ku nekk dafa am noy gisee aduna dafa am dafa am conviction yoy am. dafa am xalaat yoy am dafa am gis-gis yoy am. donc ci faral ci loolu rek je pense que loolooy tax nit politique. mais du lenen lo xamantene loy duggal sa poche wala mais boy politique c'est parce que dans nga am vision bo xamné ci cham bo xamné ne mm-hmm. gëm nga ne bu doxé mm-hmm. gëm nga agriculture bu loolu doxé la nga bëgg dana ko am looloo tax ñun ñuy politique motax tax bu ñu demee en tout cas gi suñ suñ wal ci suñ suñ bopp ci lolu vraiment ci lañ xaw retiré wu mm-hmm. euh, Baye CRC Baye CRC mu continuer donc ba légui ñom dem ak les partis au pouvoir alors euh, alors Maniang Diaw depuis 2014 ba mu bàyyi Aliou Dia mu ànd ak donc euh, le parti au pouvoir mom euh, dafa donc ñëw rapidement relier donc parti bi di réew wala entre temps dafa euh, observer donc une pause xëy pour bien euh, peut-être préparer son avenir politique. en 2014 parce que buñu ñu né bi ñom El Hadj Mbacké ak ñom comment dirais-je Badara Ndiaye Baye. Mhm. amon na yeen sama yenen xarit. Mhm. muy ku melni Mansour Sakho ak Khadam Boy. Mhm.

biñu démé ba élection présidentielle yi jub lañ leen nag mënuñ politique ba paré di top absolument parce que askan bee ñu ko laaj. Mhm. waxtu ñu génnee ñu ñi laaj ah maña yow déggatuñ la maña yow gisatuñ la. Mhm. ci booba nak mhm. lañ jël suñ décision dik ci parti biñu waxé parti réew mi. parti réew mi suma ma en 2019 lañ ci dugg. donc ce que dit que Maniang Diao pendant presque 4 ans aussi donc mi ngi nekkoon. Ben, pose pause observer un peu. Wa euh, je menais des activités aussi parce que pour fàtte ne. Euh, mbiru càmm daf ma soxal. Mhm. euh motax dir bobu yep lima ma bàyyi mhm. période bi nga xamné ma ngi doon nek ci activité intense dama ko concentré ci mbiru càmm donc suma ma la ci càmm gi la gënoon nek 2014 euh, ba 2019. très important mhm. amna solo ci donc bobu les parcours xamna naa nak dañuy ñëw ci touti euh, fi nga xamné fi lañu nek nekk muy commune bu dara Jolof yaa ngi wax légui mu nek euh, donc commune bo xamanteni depuis donc 2014 ba légui euh, donc euh, gis nañu amna ci maire bu Yes, bo xam ko yore nako diko doxal ba jamono yu yow euh naam sax nak yow yaa ngi di observer donc la situation c'est bien vrai que donc bokku leen plateforme politique mais alors yow nak gisé donc la situation donc pour la commune de Dar qui est depuis 2014 ci ay loxo donc le maire de la commune di Momar Ndiaye Mawo waaw euh, jàngat bi ci am rek moy dañu japp ne suñu camarade bi nga xamantene ne lañ ci tek ñun dañu gëm ne mosta gëm ne dana nekk maire de Daara euh, parce que dañu fàttaliku rek en 2012 bokkoon nañu moom campagne euh, te su ma yeboo ne la tey bu fekkoon euh, la mu bëggoon sotti na tey Macky Sall du toog ci nguur gi donc tey bu ñu walbatikoo tey ba APR dugg au ab maire ñëw mu doon maire bi nga xamante ne démb moo Ablaye Wade ànd ñun dañuy gëm ne rek maireu délégué la motax tay tey mënuñu wax ci mom bilan. Mhm. parce que bilan maire. moy mhm. ki nga xamné mhm. bi ngay dugg ci bi ngay bëgg dëkk bi. dang koy bëgg d'abord. wane ci compétence am ci expérience yo xamné dang koy def parce que suma lay rappeler suma xarit Ali Salah. bi nga xamné mo jité le parti réew mi. Ali Salah Diop. Ali Salah Diop. limi def ni le maire d'abord il faut nga bëgg ko. Nous ba aussi expérience de ci solo. ensuite nga am initiative yoo xam ne donc koy mën a doxal ci partenaire seeti leneen ak leneen loo xam ne boo dana am ci commune bi ba ngay chaque trois mois wala chaque six mois dana dem ci benn commune méngale ko par rapport ak daara commune ëllëg su jëlee maire bi lan la mën a jël ci expérience ci commune boobu mën ko dugal daara ñun gis nañ ne maire bi nga xam ne nekk fii waajalu ko donc c'est normal que tey daara jafe-jafe bi amoon bi fi Pape Sall jógee ba léegi moom fi nekk bi ñu leen njëkk a cité muy jafe-jafe bi gën a doy waar mooy problème électricité naam su fekkee ñu ngi lay wax ne def nañ sept kilomètres six kilomètres mhm. mais xam nga damay gëm ne rek pour ñu satisfaire souffrance euh, mhm. waa daara mhm. du ci question ay miettes ay sept kilomètres non mhm. il faut que ñu am vision globale pour que képp koo xam ne yaa dans le territoire communal la la yelloog ñoom ngay fay sa impôt di def lenen, la la yelloog mom manam ci walu électricité ci walu ndox dañ la ko wara jox mais li ñu tuur lëndëm askan wi moy que Caritas jox nañu li, a li ngui jox nañu li, te ñoo ñooñu taxu ñu fal donc ma gëm ne rek Euh, bilan bi des na lool. Mhm. ci wàllu assainissement. Mhm. man dama jàpp ne daara tey la gën a salte ah tey la gën a salte mhm. parce que li koy firndeel rek euh, mooy nga dugg ci bërëb yi nga xam ne mooy entrée daara. jóge ni Linguère. Mbëlëxee euh, Ngeet. waxtu woo fay dugg rek. da ngay xam ne daara tilim na. te loolu lépp dama jàpp ne maire bi mu ñëw xamoon na loolu am na. waroon développer stratégie pour jéem a jàppale askan bi pour xool nu mu ko doxalee. fii ñu nga xam ne ñoom la gën a sooxee mooy wàllu suuf man dama gëm ne daara tey li ñuy wax territoire communal bi jeex na waaye tey li fi des ak si néew ñu koy mm-hmm. tuddee réserve mm-hmm. en tout cas askan suba su jot ñu jooy naan ñu ngi koy jéem a jaay ñu ngi koy jéem a dugal fii ñu ngi koy jéem a dugal fii donc loolu rek dañ koy résumer ne maire bi muy ñëw maire délégué la mm-hmm. délégué nag la ko la ko kële wax lay def. alors euh, donc yaa ngi wax ne xëy na yow gis nga ni peut-être le maire euh, de nga euh, maire délégué alors qu'est-ce que vous appelez euh, les maires délégués le maire il a été donc élu en 2014 par waa Daara Djolof alors. waaw on n'a pas compris c'est quoi le maire délégué waaw xam nga xam nga maire maire bu ñuy mm-hmm. élire. Mm-hmm. damay faral di wax ne da koy bëgg. maanaam askan wi rek askan wi bu ñu toogee rek ci wàll ci biir élection yi rek danañ xam ne kële kat mooy maire bi. Mm-hmm. mais ñun ñëpp gis nañ stratégie yi nga xamante ne lañ développé au niveau de Dara. Daara. ba tax tey moom mu nekk ca bopp ba je pense que am na benn xale bu fi nekk mm-hmm. euh, ci li ma dégg mm-hmm. ci mbedd mi fekkee dëgg la mm-hmm. ba muy dem dans ci mairie bi ci ci euh, conseil municipal bi amoon na yaakaar ne bu demee day gagné c'était kii encore kooku noonu waa xam nga comme que bokkuma ci ñoom bugguma tudd tur di absolument euh, daal te li ma wax lu ma leer la parce que ci ma ko déggee ñu ko jege lañ mais li may wax benn waaye jóge Linguère rek ci guddi gi ay 2 heures du matin bi mu dikkee lépp la destitué moo tax bi ñu xëyee ñu ne diwaan maire ñëpp jaaxle nañ. benn waay boobu c'est c'est l'actuel ministre ou bien. wala waaw su la neexee su la neexee yaa ko mm-hmm. tudd mais man du ma ko tudd. Mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. loolu la voilà. am na solo mais quand même nag euh, Daara Djolof quand euh, xanaa kenn du wax ne dëkk bi dafa lënd wala amul ndox car quelles que soient les circonstances xanaa peut-être gis nañ dëkk bi leer na tuuti am na quelques extensions ci wàllum ndox ak courant.

assainissement da ngay préparer d'abord la population à travers yéen les journalistes Maodo Cham. sensibilisation wan leen salte lu créer et si régler leen ay dépôt parce que tey lu ñu gis daara amul dépôt munoo wax ne fi, bu fi indee mbalit fi lañ ko war a ay dépôt sauvage nga gis mm-hmm. ba bi may ci tu tudd rek mooy bi nga xam ne mooy islam nga xam ne tey ñun échec au niveau de la commune de Dara en 2009 une le parce que suñ combat qui yëpp ci parce que nous ne centre de dara, entre guillemets centre de Dara nga xam école élémentaire banque une école fa ba donc que il may a une opération coup de poing yi bien, mais faire. ne faire. Il faut le régler faut situation bi. électricité. xamna da ngay togn rek waye boy dox goudi bo yor torse do dem mais kam dekk bi na leer tuuti kam dara jox au moins surtout moment bii ni ak lampadaire yi nga xamante ni poto yu ci bari maintenant ñu ngi sur place ah. bientôt donc ta limay limay len togné leen tooñee aussi travaux vont démarrer limay len togné aussi moy hmm. que ne bu ñuy wut lampe lampe lampe yi nga xam euh, pour lampe mbedd la ngir yalla nañ ñu xolal lampe yo xam ne jamet dana am dana am puissance hmm. parce que damay gis ne façon lampe yi ñi def en tout cas laaj naa technicien bi nga xamante ne day liggéey ci wàllu Senelec mhm. mais du ne làmp boo xam ne war nañ ko def ci mbedd yooyu yëpp ay tappale yoo xam ne ñu ngi koy def mhm. te jëmale wut askan bi kanam ci wàllu ndox en tout cas gox bi ma dëkk nga xam ne mooy angle islam tey la fa ndox gën a manqué tey la jur gi gën a sonn tey la askan yu gën a dee ndax lan ngir ndox parce que damay wax ne rek ndox. tant que dara amuñu ko parce que dara dafa tang jur gi dañuy nan nit ñi dañuy nan donc tant que amuñ maire bo xamantene day am gis-gis bu sori manam du gis-gis bo xamne rek c'est ponctuel jox nañ ma 2 kilomètres jox nañ ma 3 kilomètres non da koy jël à bras de corps ànd population bi fam ko wara joy mu jooytu ko fa parce que chance bi nga xamne maire euleuk dara am ko population bi lii yëpp ngay wax dañ ci ànd

jox la foog nga def dara la ngay def kay mooy maanaam la ngay def kay day néew néewaay boo xamante ne nit ñi duñ ci mën teg seen bët mais ala kuliyaan foog mu def dara am na solo waaw euh, am na solo ci ponk boobu xam nga nag euh, am na lu ñu bëgg waxtaanee laata dañuy laal tuuti mm-hmm. euh, ci donc tolluwaay bi réew mi mooy ci wàllum donc élevage ci lu si yow Euh, sa xam-xam donc màcc na ci boobu boobule wàll aussi euh, ñu bëgg ci waxtaane tuuti rek xam nga ku ne daara jël aussi sa xel day dem ci càmm gi mu nekk donc une localité bu nekk au kër donc la jon zone sylvopastorale euh, tey ñi waxtaanee ngir nag prétexte leen dong la muy ci tabaski ñu génn ak opération bi gis nañ donc coow li bari na Euh, am na lañ doon xaar ñii ne donc vraiment ren situation bi Alhamdulillah, xar mat na matul alors donc yow sa point de vue avec donc euh, toutes les organis euh, toutes les plutôt mesures yi nga xamante ni nañ ko ngir su ko defee mën am opération bu baax ci cette année ci yow comment vous appréciez quand même donc le bilan de cette tabaski 2019. waa jërëjëf Maodo laal nga domaine boo xam ne bu ma sawar la muy ci wàllu càmm parce que kiñ ko dénk. dafa dëkk daara bokk Jolof bokk département Linguère avant tout ñu koy ñaanal yàlla yéen bi nga xamante ne la président Macky Sall teg yenn na ko ko yàlla jàppale ko parce que rek moom rek ko mën a jàppale pour lam ca bëgg la ca askanu bëgg mu mën a matale waaye pour rappel rek kenn ba nañu analyser ci tabaski dañ koy féliciter maanaam li jëm ci maladie bu ñu doon woowe grippe équine parce que dafa duggoon nit ñi naan gurmu fekk boobu da doon joog jot da doon joog jot ministère bi. absolument nit ñi naan gurmu. Mhm. ñi naan gurmu mais bi ñu demee ba xool tendance bi évolution maladie bi gaaw vétérinaire def prélèvement bi ñu demee labo ba xool ko mu doon grippe équine. équine effectivement je pense que boo xoolee côté Sine Saloum. Mhm. la ca dee ci bàyyi ma bari na. bari na waay mais ak pragmatisme ak compétence ak xarañ. Mhm. doxal na ko ba tey grippe booba dañ ko faagaagal. Manam, ñu matuka yi nga xamné le président Macky Sall joxon nako ko ko. Hmm. da ko doxal ba lolo dem. ba réussir quand même loolu. loola nag est une réussite totale. Hmm. bo xamné ne képp kuy éleveur hmm. càmm ñor la. da nga ko félicité da nga ko gërëm ko remercier ko xamné il a agi à temps. maintenant ñu ñëw ci tabaski bi parce que buñ ñu tabaski le président Macky Sall bi nga xamné Sénégal ñoko fal. mo joxe instruction en conseil des ministres. ne bëgg naa monsieur le ministre sàmm njóobeen te kat askan wi nañu am xar waxuma am xar rek mais nañu am xar xar mu yow xar moo xam ne nañ koy jënd njëg gi na xaw a woyof absolument rawatina nga jàppale ñi nga xamante ne ay néew doole ba ñooñu mën a jot ci xar yi ca noona le jël subvention pour jàppale éleveur yi subventionné ripaas ne au lieu que ñu koy jënd sept 7400 dañ koy jënd 5200 absolument jël taxe yi nga xamante ne daanañ ko fay mu dindi ko jox ko ak carburant jox ko oto na ko wëral réew mi wëral marché yi fépp koo xam ne mën nga fa dem waxtaan ak éleveurs yi waxtaan ak producteurs yi nga dem waxtaan ak ñoom. waaye ci cëppaandaw ja comme ko ñun suñu bët lañu am te dañuy xool te li ñuy dégg gis nañ ne xar dafa manqué. cette année ci cette année yi mm-hmm. donc. ñu jàpp ne instruction Macky yooyu nga xam ne joxe na woon na ko daf ko daf ko daf ko manqué maanaam attente ba ci Sénégal yi doon am amu ko ci loolu nag ñun benn jàngat lañ ca def effectivement waaye ci jàngat yooyu li ko waral comme ne ko li ko ja li ko waral du kenn ku dul les gros producteurs mooy ñi nga xam ne dañuy bénéficier wu ci ci financement yi nga xam ne état mi ngi koy joxe parce que benn am na benn fonds bu ñu wax fonds stable bo xamné éleveur dañ koy jot te généralement éleveur yi ñu koy jox yu mag la moy les gros producteurs. les gros producteurs way je pense que amana ñooñu la déglu. Mhm. ba ñu ko ci kàmb parce que damay dégg ñu naan xar du manki ñoo manqué so doon nañ wax lool mais tay bi ñu ba xamné xar manki na mhm. ñu né xar manki na parce que nit ñee teelut ta génn dama né en matière de politique d' élevage am nga sa service technique. absolument am nga sa service déconcentré. Mhm. am nga ñepp ño xamné man nga xayma yo xamantene boko défé da nga xamné réellement ndax xar dana manki xar bu manki effectivement mais tay li ñu gis producteur yooyu nga xamné la porté won confiance. Mhm. la joxone yaakaar la joxone lépp. Mhm. que kat ñoña en contrepartie ño dem au lieu que ko wara andi 1000 nga indi 500. ko wara andi 400 nga indi 200. donc biñu ñu ba nga xamné Sénégalais yi. waxtu wa ñuy jóg muy dernier jour bi bañ jógee bañ demee di jënd xar manqué donc nag loolu dañ koy xalaatal rek di ko recommander ne ko càmm doon na loo xam ne dafa complexe mhm. maillon yi dafa bëri ëllëg na bañ a jël benn maillon rek bay beneen maillon mais na xool maillon yëpp ensuite am suivi mhm. parce que tant que deful suivi maanaam producteur ba mu ne da ngay indi 1000 nga indi 1000 kële da ngay indi 500 nga indi 500 tant que defuñu yooyu mhm. je pense que toujours ci loolu rek lay dugg ñaareel ba aussi li ñuy wax càmm mënuñ ko yemal ci jëggaan yi. dépendance bi. dépendance maanaam ne damay sàmm damay dem Mali damay dem Mauritanie ñun gëm nañ ne loolu taxul sàmm dem kanam am naa suñu benn xarit bu ma doon waxtaan mu ne boo demee Turquie ñoom bu tabaski jotee ñi nga xam ne amuñu doole seen loxo jox seen ginnaaw. absolument mais dañ jël nag. loolu nag ministre bi li may wax ne état lu mënul amul su waxtaanee ak les autorités religieuses ak sa classe kii mhm. ñoom Maodo Thiam nga xam ne les journalistes ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñu def une forte communication sensibiliser la population mhm. pour que kat ñu éviter jëggaani mais li fi nekk ñu yem ci je pense que càmm gi dana mën a jëm ci kanam mais lu dul loolu daal en tout cas je pense que euh, la ñu Macky Sall digoon ci biiru càmm ne incha allah ren xar dana doy euh, bi ñu gëstoo xool déglu gis leen ne gisuñu ne càmm gi vraiment lañ ca lëm doon séntu am na. peut-être bu ñu la déglu na xëy le ministre il est trahi par les groupes euh, de peut voilà. c'est ça c'est ça les gros producteurs. Mm-hmm. parce que damay wax ne boo seetloo ñoom ñoo nekk dans les organisations d'éleveurs. Mm-hmm. ñoom ñoo nekk dans tous les maillons. donc à chaque fois que dara xew mm-hmm. boo yeboo ils sont les devants. mais bu damay wax ne ñoom ñooy commerçants ñoom ñooy défenseurs. donc ñoom nañ mën nañ réguler marché bi. absolument.

parce que càmm doonul ne doonul ne doonul ne tabaski la rek waye Sénégal généralement natou kay la. absolument waaye bii moom. bii moom su ma la lañ ko don xaar gisuñ ko ci mom mhm. donc nak euh, liñ koy ñaan. moy que mu baña a ñeneen nit ñi nga xam nga xam dañ koy wax naan ko ni la ni la yaa fi nekk yaa fi nekk. Mhm. mais mi delu gannaaw am un esprit rétrospectif mhm. pour xalaat que kat càmm gi li koy développer que ñëpp ci war a bokk. ñëpp ci war a bokk muy chauffeur ba mhm. muy muy éleveur ba. muy gros producteur ba mhm. ñëpp a ci war a jóg. Mhm. maintenant la suivi. na bañ a bay rek léegi ku mel ni gros producteurs yi. di jëli xar te du contrôler je pense que bu waxtu wa jotee aussi. ñii rek ñii rek lay defewaat effectivement am na solo euh, ki ngeen di teewlu donc jamono gi mooy suñu gan bañ ak jaw xam naa nag waxtaan bi ñu ngi ci pàcc bu mujj bi ginnaaw nag bi ñu laalee tuuti. ci donc opération Tabaski 2019 euh, euh, c'est de l'actualité quand même bien vrai que nak ay fan dong ñi genn ci donc lañu genn ci Tabaski bi motax nak aussi comme mom en tant que donc acteur également donc du secteur de l'élevage motax tax ñi daal di tijji woon boobu les parenthèses de ak mom su ko defee man ci tout tuuti alors li ñuy bëgg rek jéxlé waxtan donc mom moy actualité donc euh, national ñi xuus tuuti suñu gan mañang ci donc bi réew mi euh, donc euh, maa ngi wax sànq yow nga bok ci donc coalition Idy 2019 euh bo ba légui nak yeen sen sen vraiment sax sen kangam bokon na ci ñi sampoon dënd ci élection présidentielle yi génn mais ñëpp gis nañ finalement donc l'expression donc des urnes finalement le président donc est reconduit le président Macky Sall yéen nak ba légui quand même surtout jamono ji ñun dañoo déggul Idrissa Seck wétil est-il jamono lu fa xew ci réew mi habituellement on entendait Idrissa Seck donc ak gangawram waye donc il est dans le mutisme lan mo waral pat pataaral gogo waaw jërëjëf Maodo. yaakaar naa laaj boobu am na solo effectivement demoon na élection en 2019 avec une forte coalition euh, mais damay wax dire rek euh, élection 2019, élection 2019 élection yoo xamante ne su sénégalais yëpp gëm nañ le président Macky Sall a joué le franc jeu kon waxtu bi du doon pas palais mais quand on les primo-votants da nga leen a carte ...qu'on les militants de Rewmi les militants du grand parti ak militant yi nga xam ne ñoo ko soutenir nga leen di traqué di xool ba fële la ñuy voté bu ñu fa waree voté nga changé ko lieu de vote yi mm. ñun loolu daal nañu moo tax bi élection yi jeexee euh, ñu dem nuy ji kilifa gu am solo muy sëñ Mountakha mm-hmm. mu ne ko président yi di sekk dafa mel ni gañe nga mm-hmm. réew mi sam réew la mm-hmm. su tàkkee dafa mel ni yaa ko taal dañu dañu ab boo xam ne dañu wekk suñuy kilifa ñun gëmuñ ne sëriñ citoyen ordinaire la loola bañ ko jàngatee nag ñu dikk toog parce que booba am nañ mébét yoo xamante ne dañ ne woon élection yi dañ koy contesté parce que sénégalais a ci teg seen bët ay xale yu ndaw ñu leen woteloo dégg naa ci Linguère sax xaw ma clim créé nañ fa bureau boo xamante ne en tout cas waxtu yi mën naa taal sama oto ñu ànd fa mais boo demee doo fa gis nit mm. donc daal càcc gu nekk indi nañ ko pour toog ci nguur gi ba ñu sëriñ bi defee loolu nag lañ dikk na dañuy bind suñu livre blanc bi ñu bindee suñu livre blanc yaakaar naa la ca nekk lépp Sénégal yëpp xam nañ ko keroog Mamadou Diop Decroix bi nga xam ne la président Idy Seck moo ko mandaté mhm. waxtaan ak askan wi je pense que la nekk ca biir élection yëpp tënk nañ ko ci président woote jalo ñu jàpp ne am réew naam confronté baax na mhm. waaye day am waxtu woo xam ne da ngeen toog ngeen waxtaan parce que bu ñu en 93 su fekkoon Abdoulaye Wade toogut ak Abdou Diouf kon en 2000 du nekk ci au pouvoir mhm. ñu ne comme que bind nañ suñu livre blanc boo xam ne ay manquements yu bëri gis nañ ko ci président woo ñu dialogue dañu dem dialogue ak moom danañ dialogue ak moom xool li nekk ci wàllu pétrole bi danañ dialogue ak moom xool li nekk ci wàllu économie bi danañ dialogue ak moom xool li nga xam fichier bi moom la dënk lañ lañ ci tënk loolu tax nag président bi Seck ne comme que dañuy dialogue nak te wax deug yalla waxtu wuñu ñu dara je pense que biñ ne Nguy mi nga xamantene ne luy njàng moy njàng élection bu demee ni mom la biñ demee ne mom du nekk ci euh, du nekk suñu président yëf yi du jaar ci mom mhm. da ko dindi jox ñu assurance aussi nañu lepp lo xam ne ci dialogue bi dañ koy appliquer lola nak bu fekkee réew mi la tax a ñor réew mi nga bëgg réew la tax ngay daw

boo jëlee ñay trombe bi xaw ma nu ñu koy waxee ci olof bi mhm. maanaam trombe bi moo nekk ci biir Mauritanie mais boo xoolee dox géeg bopp béeg yëpp mu ngi ci biir Sénégal mhm. mu ne ko waroo ko signé cinquante cinquante mhm. donc loolu dañoo gëm ne tey li koy dindi moo ñu dem waxtaan ci dialogue bi dem diisoo waxtaan xool li nga xam ne mooy mën a jëmale réew mi kanam looloo tax président di Seck waxtu jot mi ngi wax maintenant nag aussi du ben presse mhm. moo koy wax ne ko ni ngay def mhm. parce que dafa respecter presse locale dafa respecter journalisme local ñoom la BBC def mhm. journaliste def nañ ko investi investi baba baabaay dara lu nek wax na ci lu nek def ci donc c'est pas que aujourd'hui que BBC wax rek président il sec jël laminam bi commencé wax non non dafa am lo xamne dafa am agenda de communication

dàq gi donc à caution bi nga xam ne xëy nañ ko donc pour les communes et départements a aussi nag ngeen gisee donc doxalin bi nga xam finalement donc le parti au pouvoir doxalin nañ ko ci élection yi daal waroon amal ci 1er décembre bi. wa xam nga ku fichier bi nga xam dem élection 2019 beaucoup ko wóoluwul boo élection législative euh, élection locale aussi dañ lay baatraal rek donc comme que ñun fichier bi lañ ca tëxañ moom lañ bëgg a xam donc moo tax ñu ne ñun ànd nañ ci report des élections a ba aussi. Mm-hmm. dafa am suñu militant li ñuy woowee les primo votants xale yi nga xam ne dañoo bëgg Idrissa Seck. absolument am cofeel ci moom. bëgg ko jàppale dañu bëgg voté te boo xoolee normalement avant six mois dañu war a ubbi war a ubbi kii bi. dañu war a ubbi liste électorale yi. mais mbind moomu amut. donc état bi jëlu woon décision pour organiser élection yi waaye ñun la mu taxañ ca fichier ba tey daal moom lañ bëgg a leerlu. ba ëllëg ki nga xam ne sénégalais yi danañ ko fal nit ñëpp dañ ci mën a d'accord. moo vraiment. Euh, Idriss Seck yéen daal vous êtes d'avis quand même ñu reporter les élections. on est d'avis. Mhm. parce que alors caution bi aussi caution bi. caution bi est-ce que japp ngène ne ci li ñu dégg. Mhm. loolu aussi li ñu waxtaane la. Mhm. parce que après le le euh, le ministre Aly euh, c'était pour respecter les délais de la CDAO moo tax mu avancé bon lool. les dix millions. Euh, mais loolu lépp lu ñu la parce que ce bir dialogue ba lañ koy waxtaane teunk ko pour que kat ki war a nekk candidat war ko don ki ko wartu don wartu don mhm. donc pour le moment da ko avancé woon noonu rek c'était mhm. pour se couvrir effectivement euh, mais inshallah allah dialogue ba dal lañu teunk li nga mhm. xamantene moy mooy ni maire est-ce que maire dañ koy tabb au suffrage universel est-ce que maire ah, conseiller koy fal donc jamono ji nek na sax débat légui maintenant euh, ñi ngi jot nok euh, pour les prochaines élections maintenant c'est du c'est le suffrage direct est-ce que ñoo dañoo euh wax liñ ñu bëgg ci urne est-ce que donc yéen jàpp nga lolu c'est le meilleur système ou bien lolu rek lañ gën lolu rek lañ mësa gëm parce que askan bi généralement dañuy woteel diw mais buñu ñu ba ci dans les combines. Mhm. kii dana am deux conseillers kii am quatre conseillers kii am cinq conseillers. absolument suñu diké nga soudoyé leen. Mhm. jox ñi 1 million jox ñi yii ñu wote. xamun charge bi nga xamantene mom la askan bi dénk. donc nañ bàyyi population bi tànnal seen bopp. Mhm. maintenant nag adjoint au maire moy poser problème. Mhm. je pense que lolu ci dialogue bi daañu ci waxtan pour xol yan issue lañu ñuy def. Mhm. pour que kat lepp di njëriñu askan bi. ñun da gis nga né suffrage direct bi quand même mooy mooy li gën. loolu moo gën. parce que ñun gëm nañ ne loolu bu amone rek. euh dañ xamné daara ñu bëgg sen bop la alors euh, pour Dar aussi yaa ngi wax léegi sànq nga ni donc yéen waa réew mi mais Manyang, yéen est ce que donc Amgen, quand même popularité dans la commune daal on n'a pas vu euh, quelque part quand même waa réew mi on voit que donc les apéristes parfois donc euh, les patriotes alors waa réew où sont-ils. wala yéen da ngeen amul ay nit wala quoi. xam nga xam nga xam nga xam nga li may wax booy liggéey aajowul ngay def le folklorisme mm. ku xam Ali Salah Diop xam nga il n'aime pas le folklore folklore bugg ko li def on rencontre les militants li la wax ne jeunesse bi tay Ali waxtu bu demee élection rek ñu gis seen waxtu bu duggé ci campagne ñu gis bop ca noonu la rek mais gëmuñ né di def tapage di woté fële it Seck loolu la gëm manam aw askanam ay projet nga koy tegal aw askanam. ay idée nga koy tégal ah mais ñi dañ leen a gisugul daara ya nga xoxu projet est ce que donc waaw peut être peut être réew si ñom bon peut être ya accès gul ya ya accès gul ci ñun mais mhm. en tout cas ñi ngi def li ñi wara def ñi ngi réunir ñi ngi dajé ñi ngi waxtaan mhm. ñi ngi xol yane stratégie lañu def pour que kat euh, gëna a massifier réew mi mhm. maintenant nak la après di def taal sen auto jëlé ko Dakar ñun ñu ci ñun dal on le fait waxtaan ak xalé yi waxtaan ak jigen ñi waxtaan ak ñi nga xamné les groupements parce que ñun dañu gëm ne réew mi tey bu jëlu daara. groupement yi ko to groupement yi féminin yi pratiquement ñoo koy ñoo koy daaneel. bi ma la ci jox rek en 2014 soo xoolee la meilleure campagne bi nga xam ne mëne nañ ko au niveau daara mooy notre coalition. waaye suñ mbokki yaay yi nga xam ne comme que yàlla def na ñi ci jàng bëriwul. dañuy dikk groupement bi ñu jox la 200000. groupement ñu jox la 100000 groupement bi ñu jox la 50000 ca ngoon nga lépp te loolu nak ñun dañ ci xalaat xol waxtaan ak suñu yaay parce que ñom aussi. euh mënuñu def seen temps japp jàpp ne moo ko basculé euh, xëy na ci ci cappaandaw gi xaalis bi mhm. xaalis bi parce que mhm. waji jogé na Linguère. mom mhm. bu nit ji di trajet ay projet mom xaalis lay jaay nit ñi. te on se rappelle en 2009. ah mais peut-être politique aussi donc c'est xëy na appuyer donc les gens parfois tamit ci genn wàll gi. non xam nga su fekkoon amna jéxital limay ali may Salax wax na ma développement day am jéxital mais tu imaginez dans les groupements féminins nga dem les femmes ñu joxoon 200 mais tu nga fay fekk on les a pas préparé préparé wuñu pour ne leen bu ngeen ko jëlee fii ngeen koy dugal ni ngeen koy def. tàggat leen ci tàggat leen ci mhm. mais dañ leen koy jox rek c'est parce que dañu bëgg benn idée Mais comme quoi nañ mu woteel. Mhm. malheureusement dans le ko xaw a tardé. Mhm. ñun nag ci yooyu en tout cas nous xam nañ au niveau de la jeunesse. Masha'allah, au niveau de cette catégorie professionnelle xamnañ nañ ne projet bi nga xamné Ali Salah porter nako au niveau de la commune ñom gis nañ sen bop maintenant lu ñu des c'est au niveau des groupements féminins ci yoy lañu dox motax peut-être euh, li nga bëgg le folklore li gaay def mënuñ ko def donc ñu ci dem à tout instant di waxtaan ak ñoom di les sensibiliser parce que mbir mi sensibilisation la du lan lay dox mais njeexital ga très bien voilà Amna solo alors donc euh, élection yi nam sax kenn xamagul ci ban date dañ koy japp. yéen ngi wax né ni a ngi ci groupement yi ci jeunesse bi donc ci mag ñi alors pour réew mi aussi pour dara principalement est-ce que yéen vous êtes maintenant donc euh, prêt pour briguer peut-être euh, le suffrage donc des Darois donc pour les élections qui se pointent à l'horizon effectivement mm-hmm. le réew mi moom dafa gëm né mm-hmm. ak expérience bi nga xamna am dara war na ko mën a jiite oui, xam nga euh, coalition la une bëgg mhm. parce que en 2009 l'état tax perdu la coalition li perdu suñ coalition perte mhm. mooy on était dispersé l'opposition dafa dispersé mhm. en 2014 je me rappelle j'ai un ami Ali Salah qui bu ma daan nous naan ma su diw ñëwoon su diw ñëwoon rek ñu gagné bañu ñu diw mom ñew naan japp mhm. lañu mané ko ñu waa tooñ sa bopp absolument parce que tey boo ñëwoon jàppalee mhm. réew mi coalition bi nga xam ne réew mi jité nako mhm. su boobaa dañ donc ci yoy la ñu dox fexe ba opposition bi doon ben est-ce que lolu aussi du leen arrivé ci élection locale buñ ci yexé wa xam nga li li ci suba moom li ci suba moom yëfi yàlla la dañuy ñaan rek euh maintenant dañ ci dox suñu tank tubéy jëm waxtaan ak ñun wara waxtaan ak parce que li ñu gëm te Mustapha Ngom yàgg ci tagat je pense qu'en 2014 Euh, ñu ngi koy jaalee mbokkam yëpp mhm. di ko ñaanal yàlla mhm. mu doon koo xam ne ku ku ku sori ci daara la mhm. da ci sonnoon je pense que am na benn coalition bu mu demoon gis kenn ko taxoon ba ba coalition bi mu njëkk a dugg parce que loolu mooy mën a tax daara mën a autonome euh, xam naa ni waxtaan bi vraiment euh, am na solo xam naa ni ñàkkul ci yeneen jëmmi jamono si danañ fi àndaat ak suñu gan di Maniang Diaw xam naa dañu lay bàyyi ak mbokki téléspectateur rek kàddu yu mujj yi laata ñu yëkkati jotaay bi waa jërëjëf Maodo di leen sant di gërëm sa technicien bi cham di wax ne bu participer au développement de Daara développement de Jolof parce que seen slogan bi ma gis ngeen bind seen UD UD TV muy slogan Jolof la am Jolof mooy suñu lépp la première télé numérique di Jolof je pense que tey ñun ñi nga xam ne dañ daan am euh, benn gis-gis ci par rapport ak euh, télé Ndakaaru tey barrière boobu dindi ngeen ko te ma gëm ne fi ngeen taxaw fokk nag autorité seet si leen jàppale leen parce que dama gëm ne lii ngeen def mën na yaatu lii ngeen def ñëpp mën nañ ci gis seen bopp donc maa ngi leen di ñaanal di leen wax ne rek euh, lii wolof di wax xëcc bu dagul dikk vous êtes sur le droit chemin te gëm naa ne ëllëgu daara war ngeen ci mën a bokk ëllëgu daara communication forcément da ci bokk salte bi ñuy wax tant que boolewuñ ci ñoom Maodo Thiam ñoom Sidi je pense du mën a nekk donc li ñu leen di ñaanal rek yàlla jàppale leen li ngeen di dox muy njariñu askan bi yàlla gën leen ci dëgëral Maodo moom da ngay suñ genn wàll yàlla jàppale la parce que vraiment gis nañ sa liggéey waxtu jot ci wàllu éducation ñu ciy yëngu ngay dox que vraiment li ñu ci def en tout cas képp kuy proviseur képp kuy directeur gis na ci boppam ñi ngi lay bàyyi ak yàlla di leen ñaanal yàlla di ñaanal vraiment la technicien di ñaanal ñëpp jërëjëf asalaam merci beaucoup ñu jaajëfal bu baax a baax euh, amoon mbégte di yaatu tey ànd ak euh, kii di Maniang Diaw nekk fii ci Daara Jolof waaye tamit di milité ci parti bi di réew mbokk ci coalition idi 2019 tay nak mbégte lu yaatu lañu amonté andana mom ci na moom ci euh, huitième numéro heure émission bi ngeen di sa suné ci les antennes d'Universe Djolof TV mu nek nek première chaîne donc numérique du Djolof jaa ngeen jëf yéen ñi safoo ci programme bi di ñu suivre d'ici et d'ailleurs ñu leen di euh, di dajé Inshallah, euh, ci benen talaata inshallah allah gan jaa ngeen jëf.